wax waaxi ndakaaru mu di ndaw ña fay liggéey ñoom la wax ay dokeer dokeer nag su ngeen ko déggee moo di euh, yëkkati maanaam sëf ba wàcce ay godaar mu godaar mooy bagage ci lu jëm ci yi nga xam si ni mooy dem ci camion yee wala ba conteneur yi nekk foofu la ca diwaanu port autonome bu ndakaaru ñoom nag ñoo mer ba futu la ko waral moo di seen ëpp dañoo gis ni lu baree bari dafa salfaañoo wàccu waaye wan leen war a jox joxuñu leen ko naka itam seen port de Dakar ñoom nag la ñu gis nag moo di syndicat bi ca dëgg-dëgg taxawaayam des na ci seeni wàll lañ leen war a jox ci ay wàccuwaay des na naka itam seeni payoor yu bare bare a dañ cay yeex a jot mu nekk njàmbat lu yaatu ba tax na ñu daal di dem foofilee ca port autonome mu fu ñuy wax Moldis taxaw fa daal mer ba àgg ci lool di xam ne nag euh, nañ leen wut euh, saafara ci seen jàmbat loolee ba ak saafara man ci am mbokk yi li nga xam si ni moo gën a mu di lu jëm ci euh, tukkib nemmeeku bi nga xam ne njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal na koy amal foofile euh, ca diwaanu Sigi ca diwaanu Mori euh, Côte d'Ivoire mu di réewum Côte d'Ivoire Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem na fa daal di fay séq ak ñoom waxtaan waxtaan wu yaatu woo xam ne jëm na ci mbir yu bare bare mu di diggante ñaari réew yi ana naka lañ mën a def ba ñaari réew yi nekk ñaari réew yoo xam ne danañ gën a tax naka la itam ba tey naka ba gën a nga xam ne ñoo nekk ci na yoo xam ne des na ji ba tey mbokk yi leneen loo xam si ni des na ko waxtaane mooy ci lu jëm ci eh, taxawaay bi nga xam si ni kuréel gi wala bokk eh, kuréel gi ñuy wax PHM amal nañ ko PHM Fulaadu moom itam teg na loxo lim bu takko takk ci ñoo xam ne dañ doon mbëkki a waxee daanaka fii mu ne xaalu ndéef la gëmm na waaye fayu la ko waral moo di ba tey ji ndaw ñaa ngay wéy di dem ndaw ña nag ña ngi leen jàppee foofu nga xam si ni daanaka def na téeméeri kilomètre ak bët gànnaaru ndakaaru mu tolloon ñooñee bokk na ci ñaar fukki jigéen ak lu toll ci ñaar fukki xale ak benn ñoo xam ne teg nañ leen loxo mbokk yi ba tey fii ci diwaanu Ndakaaru laneen mu di ñi nga xam si ne ñooy def katu ñaawteef yi ñi nga xam ne ñooy faral di sàcc am nañ pexe moo xam ne jamono ji moom la ñu am ngir di a sàcce rawati nag ko jëmee ci ñi nga ne ñoo yor maanaam la def moo di dañuy jël ay mbir yoo xam ni ah, dañu koy def ci sa pëno nga xam ne saa booy daw pëno yi nga xam ne da koy dégg mu nekk xeetu bruit ak yeneen yu ko nuru nga jàpp ni loolee jafe-jafe la boo xam ne nekk na ci daamar gi di oto bi ba tax nga jéem a wàcc ngir jéem a lijjanti loolee soo ko defee nag ñoom lu ci ëpp ñett nit la ñu doon wala ñeent ngir ñu doog laa mën a song ngir mën a sàcc say mbir ñu faagaagal la leeral nañ ci ànd ak Umar Ndiaye foofu la ca diwaanu mbuur defkatu ñaawteef yi nekk ci Sénégal saa su ne rek ñu ngi xool ay pexe yu ñuy ndesandi ngir rek mën a toroxal ay nit yi nga xamante ne nii liggéey rek moo leen ñor ngir yóbbu seen kër yi ñoom nag li ci ëpp ci ñi ciblé bokk na ñi nga xamante ne nii ñooy liggéey ci banque wala sax ñuy dugg ci banque ngir def transaction ngir rek ñu mun leen a xool ngir toroxal leen firnde li mooy li xew jamono ji ci diwaanu Ndakaaru ñetti nit wala ñeenti sax yoo xamante ne nii ay moto la ñuy yéeg jël li nga xamante ni mooy benn objet boo xamante ni day xaw a pointé suñ la rombee nag dañ koy sànni ci fi nga xamante ne nii mooy sa wetu pono oto yow mi nga xamante ni bi nga xamante ni da ngay gaare sax sa oto ngir rek xool ndax crevé nga wala crevé la di xool li nga xamante moo nekk sa oto ngir mun koo yóbbu firndeel yi mooy li nga xamante ni nii moo li nga xamante ni nii moo toll ci seize ci oto ñoom dañoo sànni mbir moomee ci weti ponoom gannaaw bi nga xam te ne nag wàcc na ngir xool ko ñoom ñooñee nag ci lañ taxaw ne dañ koy dimbale ndekkate yoo yóbbu nañ lu toll ci li nga xam ne moom la yoroon ci biir oto bi lii nag moom gannaaw ba mu ko na ak vidéo ngir a ne jamono di lu jëm ci li gën fës ci xabaar yi euh, niki ji mu di koy wax actualité du jour dana ca bokk ñu war ci waxtaane moo di euh, tukkib neme ko comme na ma ko junjee léegi njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal d'Ivoire daa defee fekk fekk fa naataangoom bi ñuy wax Alassane Ouattara bokk na ci mbir yu bare bari yoo xam ni waxtaane nañ ko bokk na ci la ñuy waxtaane moo di jàmm ak kaaraange sax dakk ci kembaaru Afrique naka lañ mën a def itam ba li réew yi nga xam ne ñoo nekk ci kembaaru Afrique rawatina CEDEAO ñu daal di gën a booloo ba lépp loo xam si ni xeex na jëm na ci seen i mbir ñu daal ci gën a am ndam mbokk yi leeral dañ ci ànd ak Soda Ndiaye Marème Soda Ndiaye moo ñu koy faram-fàcceel jiite réew Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fay ànd nag délégation bu am solo dem fële ca Côte d'Ivoire seeti ki nga xam ne moom mooy naataangoom di Alassane Dramane Ouattara di jiite réewu Côte d'Ivoire ci talaata ji ki nga xam ne mooy chef d'état bu Sénégal di Bassirou Diomaye fay moom la Ouattara invité woon mu dem fa nag rek ngir waxtaan ci lépp loo xam ne rek day gën a ñoŋal gën a rataxal diggante ñaari réew yi moom nag Bassirou Diomaye fay ñaan ki nga xam ne mooy président Ouattara mu woote ab ndaje ngir grande commission mixte bi mën a daje ndax fukki at a ngi nii commission boobu dajewul wisit bi wisitu liggéey la woon waaye tamit wisitu xaritoo ci diggante ñaari réew ñi président Faye wax na ni lépp loo xam ne rek mën na ko ngir diggante yi gën a ratax dina ko def ñu wax leneen lu jëm ci màggalu daaru salaam ren nag mooy téeméer ak ñaar fukkeel ak benn yoon buy màggal googu di am ñu jàpp ko nag ci bésub ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wala ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu ne ki xamle loolu mooy gouverneur bu Diourbel di Ibrahima Fall moom itamit xamle na ni lépp loo xam ne rek comité d'organisation bi soxla na ko ngir euh, màggal gi am ci nu mu gën a rafetee dina ko def. gouverneur bi dolli na si ne lu toll ci juróom-benn poste médico avancé ak ay ambulance médicalisée ñi nga xam ne ñooy direction régionale bu santé dinañ ko fa teg waaye tamit dinañ désinfecté ay kër foofu ca Daaru Salaam ki koy amal mooy service d'hygiène waaye tamit am na ab bésub set setal boo xam ne dañ ko fa def ci ndimbalal taalibe yi ci bésub fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne lu jëm ci wàllu électricité yi tamit dinañ fa def ay branchement provisoire ci ay kër kilifa foofu ca Daaru Salaam ngir rek moytu bépp coupure courant ci bésu màggal gi lu jëm ci wàllu kaaraange yi tamit gendarmerie bi ak police ak sapeur pompier ak douane lëkkaloo ngir lépp loo xam ne rek doomu aadama la bu fay dem waaye tamit ay bagages yi fay nekk mu nekk ci kaaraange Daaru Salaam ñuy fàttali ne rek mooy sanc bu njëkk bu suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba foofa nag ca la rawdu maam Cheikh Anta Mbacke di àndandoo bu dëgg. mbokk yi Serigne Boub bokkoon ci la wax yi doon dagaan baatu askan wi jongante yi nu weesu Serigne Boub nag ko li ñu ko moom la ñuy wax rapport ñeel euh, kuréel yi nga xam ne ñoom la jox ci lu jëm ci saytu doxalinu moomeelu askan wi ku ci mel ni OFNAC OFNAC moomee sax mu génnee rapport rapport ñeel atum ba noppi yaay di Serigne ki nga xam si ni moo di Cheikh Bara Ndiaye daal nag la moo xamle moo di Serigne dëgg-dëgg bokk lii ñu koy wax ci rapport yi nekkut loo xam ne ca dëgg-dëgg wér na wala bokk indi na ay leeral yu gën leer nañu ko teewlu moom Cheikh Bara Ndiaye dénonciation boobu dafa wax ne sëriñ boobu mooy indi ay type jalis di ko indee quinze mille xaw ma huit di ko jaayaat mm-hmm. rakkam ji ñuy wax sëñ Saaliwu mbuub mu koy jaayaat euh, trente mille nga xam ne dafa mel ne def ñoom ñoo yokk ci affaire bi daal waaw léegi nag li am solo mooy bi ñu koy euh, euh, nit ñi li ñu ci jël mooy dénonciation bi lañ jël parce que paa bi jotuñu ko sax déglu defe naa. mu hmm. daal di gaañu. Hmm. mais continuer nañ ak ak enquête bi defe naa ba gis naa ngeen def ci benn publication ca numéro 38 defe naa ci biir rapport bi seetal na ne ñoom liñ leen waxoon ci euh, carrefour médical dara amu ci. Hmm. boo gisee ma ciy taxaw benn mooy sëriñ bu musta indi ay musuñ musta def dara ci affaire domaine euh, euh, médecine. Mm-hmm. amul lu mu ci mës a def moom loolu domaine am kon donc boo waxee ne sëriñ mooy indi kit yi tib kooku rek des saa loolu wane na ne li nga wax taxawul deuxièmement mooy loo gis dafa am ay concurrence ñoom li ñuy def dafa am ay concurrence yu am mais dafa am ko nga ne moo ko Ousmane Sonko ñoo jàkkaarloo kër en face muy Saliou Mbuub dama koy wax ne ko yow yaay Ousmane Sonko mu domaine médical parce que daf cee def ay affaire yu nga xam ne suñ ko tuddee di ko waxal lii dafay am solo maanaam ñu kii ko. parce que mhm. tey Saliou Mbuub ab donga daara la. boo xam ne jàngu sëriñ Mbuub jàng waaw rakku sëriñ Mbuub la. Mhm. donga daara la boo xam ne jàngul français maanaam bokkul ci université bi bi mu ñëwee dafa révolutionné médecine Sénégal. comme Ousmane Sonko ni mu ñëwee saa boo ñëwee nag ci benn affaire ki nga xam ne dafa ñëw. Mhm. maanaam indi njub indi transparence dañ koy tam dëm. boo xoolee li ñu ko yóbbu ci mbokk yi leneen lu jëm ci wàllu mbatit mbatit mooy di culture euh, festival bu euh, Saint-Louis ndar jamono ji ñu ngi koy waajal ñu jàpp ko fukki ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ci weeru mai atum 2024 euh, mbootaay bi nga xam a taxawal jamono ji nag ñoom yëkkati nañ ay kàddu bokk na ci la xamle moo di jamono ji ña ngi koy waaj naka itam noppi nañ ci mbooleem jumtukaay boo xam ni war na ngir mën a jëm ca festival boobile bare bokk na ci la ñu xamle moo di ñi ngi xaar ay artistes yu bare bari fii ci réewum Sénégal daanaka mat na fanweer foofu la yu bare bari wala bokk ko fii ci euh, àdduna wërngal këpp ba tey bokk na ci la ñu xamle moo di ay concert yu bare bari danaan ko amal ñu koy amalee foofu la ca bayaa ndar ba tey leneen la ñu xamle moo di njël li ñu yor jamono ji njël mooy budget ngir mën koo waajale boobi lépp xew-xew ba tey wax dëgg yàlla des na ci wet maanaam lañ ko war a am dëgg-dëgg ci njël euh, des na waaye nag lu tee mbooleem la ñu yor jamono ji daneen ko jël ñu daal di koy waajee boobi lépp bis nañu teewlu seen i kaddu euh, fara moo wax i kaddu ñu teewlu ko ci micro Adama Sall ak El Hadji Gueye diwaanu Ndar Géej objectif mooy que festival bi ndar mën a dund ñi nga xam ne moo tax ñu doon ñuy déplacé wu des milliers de festivals yi jógee partout dans le monde suñu ñëwee gis seen bopp si li ñuy def loolu mooy objectif vraiment bi ñu jëm budget ou pas budget danañ fexe ba honorer la organisation de cette manifestation. donc chaque année day am si festival bi parce que festival bi du euh, comité d' organisation rek moo am activité mais am nañu beaucoup d' activités yoo xamante ni dañuy adossé ci festival bi am na organisation yu bëri ak association yu bëri yoo xam ne dañuy xaar festival bi ñëw ñu ànd si pour bokk ci festival bi mooy mooy wane ni comme li koy président yi faral di waxee festival bi seetu lay nekk dina am ñoo xamante ni dañuy dem seetaani euh, concert off ñee seetaani rap ñee seetaani leneen mais ku si nekk ñëw nañ si comité bi comité dana génn programme boobu wax ni lii ak nii la ñu ko nar a dérouler pour accompagner toutes ces organisations là parce que objectif bi ñu am mooy ñi ku nekk nga mën a gis sa bopp ci organisation festival am na koo xamante ni jaaj bi intéressé wu ko mais sabar bi ni organiser intéressé na ko takkusaan daal bi nag intéressé keneen leneen danak intéressé loolu nag mooy affaire yi nga xam ne dana am ci biir festival pour wane ni ñun vraiment bëgg nañu ren ñëpp gisaat seen bopp ci festival bi donc dañ koy wax lé wax nañ ko léegi festival bi aussi danañ permettre am na ñu nga xamante ni suñuy àndandoo la ñu woon ñu ngi woon ak ñun ci festival bi ñu mel ne Assane Fall ñu mel ne ñeneen ñi nga xam ne jógoon nañ fi mbokk yi laneen ñu war koo waxtaane wala bokk ñu war leen ko jikkil ci xabaar yi dikk bëccëg gi mu di xabaar yu soxal wàllum yoon ni ki tey jii mbokk yi lu soxal ni ki yoon tey jii nag jëm na ci mbirum ki nga xam si ni moo di Cheikh Yérim Seck di ab saabalkat ab taskatu xabaar lu toll ci juróom benn weer yoo xam ne du ko tëdd teg nañ ko ci kaw ki nga xam si ni moo di ah, la ca sino ba seno lu toll ci xaalis ci boo xam ni baaxul mu nekk liggéey bu am solo boo xam lu jëm ci wàllum set ak sell ay mbir yoo xam ne setul setul dul jamono ji teg nañu ko loxo leeral nañ ci ànd ak ndey Fatou Diop li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci kii di dina Seydina Omar Touré mi nga xamante ni daal dinay remporter procès contre ki nga xamante ni moo bindoon livre bi ñuy wax Macky Sall face à l'histoire ba tax na tribunal bu Dakar moo daal di déclaré kii di journaliste bi di Yérim Seck coupable de diffamation ca noonu lañ ko daal di condamné lu toll ci juróom benn weer de prison ak sursis mu war a fay lu toll ci juróom million de francs fa tribunal de Dakar itam daal dinay reconnaître kii di Xavier responsable des éditions de l'Harmattan complice ci yooyu lee tuuma ci fàttali yooyu bile tuuma kii di Yérim Seck mu ngi ko amale woon ci kaw kii di Seydina Omar Touré ci ouvrage bi nga xamante ne bindoon na ko tuddee ko Macky saal face à l'histoire ca noonu la kii di Seydina Omar Touré daal di woote service yi ngir ñu daal di seetal deram bokk na ci yeneen actualité judiciaire brigade commerciale des douanes de Sénoba bi nga xamante ni amal na ab saisie ci xaalis boo xamante ni dañu ko lubal mu toll ci ñetti milliards ak ñaar téeméeri millions ak toftal ci franc CFA mu nekk nag ay opération yoo xamante ni dañu ko amal ginnaaw ba ñu amalee ay renseignements ci ab projet transfert et de lavage de biens noirs ci bi saisi yi nga xamante ne nag brigade Sénoba ñu ngi koy amal weer yi weesu bu ñu ko boolee toll na ci juróom-ñeenti milliards ak ñetti téeméeri millions yu francs CFA waaye itam ñii di brigade des services d'hygiène bi nekk cees amal nañ ab saisie ci ay produits yoo xamante ni dafa varié njëg li toll ci ñaari millions ak juróom-ñaari téeméer ci francs CFA loole nag ñu ngi ko amal ngir waajal pèlerinage bi nga xamante ni moom moo war a am foofu ca Popenguine ñu war ko mbokk yi ba tey lu jëm ci wàllum yoon ki nga xam si ni moo di Ndella Madior Diouf Ndella Madior Diouf nag yaakaar naa ràññee nañ ko bu baax a baax fii ci réewum Sénégal mu di soxna soosu ngir di ay weer ci ginnaaw daanaka def na juróom benn weer mi ngi ci loxoy takk dari la ko sabab moo di kër goo xam ne moom moo ko yoroon yoroon fa ay tout tànk di ay liir di leen dundal ñu koy wax pu pouponnière moom Ndella Madior Diouf nag euh, këru yërmande googu mu yoroon moo tax ñu yoon teg ko loxo la ko waral moo di ndaw ñi nga xam ne di xale yi nañu nekkee woon nekkin wu jaaru ci aw yoon la naka noo itam euh, dund gu xeebu la ñu nekkee woon ba tey moom Ndella Madior Diouf euh, mbir yoo xam ne daan faj daanaka te itam amul benn bu tax moom Ndella Madior Diouf di war a faj mu nekk nag mbir moo xam ne bi ñu gisee xale yi euh, ñu loofoon lool xale yi wax dëgg yàlla daal di xiif lool ñu bari bari gis ko nag mu di ay yoo xam ne yaatu na fépp ci réewum Sénégal ca noonee la ko yoon tegee loxo moom Ndella Madior Diouf moom it sax tey jii la ko yoon doon diglu gannaaw ba ñu ko digloo nag ko diglu moo di attakat bi nekk ci premier cabinet ba mu ko digloo da euh, ko teg bu li nga xam ne ñu koy placé en garde à vue koy wax maanaam ba tey day des ci loxoy yoon noonu la danañu ko xamle bokkante dañu koy nag moo di ni ma ko junjee woon léegi xale yi nga xam ne téewoon nañ leen ci anam bu jaarul ci aw yoon naka noonu itam daanaka yoroon na euh, mbiri fajkat mel ni ku nekk fajkat tey itam amul benn kayit boo xam si ni war naa tax ca dëgg-dëgg muy doxalee noonee loolee moo tax ñu daal di koy teg euh, loolu ko teg moom Ndella Madior Diouf mbokk yi suñu ci noppee dañuy dem ci xabaar yi nga xam ne moo gën a fës ci lënd gi lënd gi moo di internet bi mbaalu jokkoo ak yeneen yu ko nuru mu di réseaux sociaux yi wala bokk lépp loo xam si ni fës na ci niki tey ji ñeel li nga xam si ni moo di presse Afrique wala bokk lépp xabaar la jóge ci li nga xam si ni moo di leeral point net lépp soxna caalum yër na ko dikk ngir àgge nañu ko nañu àgge teewlu ko yëpp ñu dooree ko ak site bii di leeral point net ak lu ñeel téeméer ak ñaar fukk ak benneelu édition màggal daaru salaam euh, jàppale ni nag muy événement bu mag boo xam dañ koy amal ngir màggal giseb Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke fondateur euh, du mouridisme 1853 1927 ak demi frère am bi di maam Cheikh Anta Mbacke daanu ko fas màggal nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wala sax ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu nekk bu ñu sukkandikoo euh, si gouverneur bu région bu Diourbel di Ibrahima Fall lu ni mel fësal na ko gannaaw ab CRD maanaam doon nañu ko amal ngir rek waajal lépp lu jëm si événement bu mag boobu daal dina nag uh, dalal xelu ñëpp jëm rek si wàllum uh, taay gi ak service technique yu état di wax ni itam lu toll si rek juróom mbenn postu uh, jëm si wàllum wér yaram daanu ko fa fas yéenee teg waaye itam ay ambulance médicalisée yoo xam dana tukkee ci direction régionale de la santé loolee ngir taxaw si couverture bu mucc ayib bu si wàllum wér gi yaram wax na ni service d'hygiène daañu fa fas teew ngir amal seenub liggéey Express Afrique la ñuy jàll mbokk yi jàpp leen ni yëngu jàpp leen lu jëm si wàllum dem beeg dikk bi taximaan yeeg transporteur urbain yeeg interurbain yi ndax ñoom ñoo ëmb loolee lépp mu ñu soxal wàllum dem dikk bi ñoom nag ab plainte fa séenee amal si àllarba gi fekk ko ci ndodd seen naataango yi nga xam ne ñoo yor yàngook lu jege xeet googu ñoom daal ñuy ñaawlu daal ak defante goo xam ne jàpp na ne daal jamono ji moo am ca seen biir euh, ba tax na nag ñoom transporteur yooyu dajaloo ci ab kuréel goo xam ne ñu ngi ko duppee dooleel transport taxaw daal fi mu ne ngir ñu daal di rek euh, abrogé ab décret boo xam ne ñu ngi koy wax système VTC muy voiture transport chauffeur loolee nag moo waral. ci mbokk yi mi ngokk ñu jàll ci ren dañuy jàll moo di xabaar yi nga xam ne mooy tukkee ca bi ci réew xabaar yi bi ci réew ñu ànd cek bàyyi Cheikh Diop. dañuy tàmbali xibaaru bitim réew ak Mali foofu fukk ak ñetti doomu aadama lañu ñu fa faat seen bakkan ci dëkk ba ñuy wax ñamana ci ay xamle civil yooyu dañu jël seeni bakkan ginnaaw ab opération militaire bu yaatu gu armée bi def ci njàppandalu groupe russe bu Wagner. JO Paris 2024 tàmbali na ak parade maritime bu ñuy amal ngir tertu flamme olympique bi tàmbali na tey jii lu toll ak junni gaal ñooy ànd ak lu 3 mars bi ñu duppee Belem ca Marseille xew-xew bu mag la ñuy màggal France ak JO de Paris yi war a am 26 euh, juillet ba 11 ci at mi ca Italie Giovanni Totti nekk président Ligurie dëkk bu dend ak France ak Paolo Emilio Sigo Signorini nekk ancien directeur bu port de Genèse euh, ñoom ñaar la ñu jàpp ni ngi ni démb ab l'enquête ci wàllum guerre boole ci itam ñeneen ci ay figure locale ñenn ñi dañ leen di tuumaal bokk ci ab mafia loolu parquet de Genèse moo ko xamle dañuy jeexale ca Belgique foofu liggéeyum jaay sa bopp ci góor ak jigéen dinañ ko ko légaliser ñu am salaire ni ñeneen ñi liggéeykat yi dëkk ba ginnaaw ba ñu ki décriminaliser liggéeyu jaay sa bopp parlement bi ci diiru ñaari at nangu nañu ñoom ñee di am salaire ni ñëpp dëkkub Belgique Allemagne ak pays ba ak Nouvelle-Zélande ñoom bu yàgg nangu nañu lewal xeetu forme de salariat yu mel noonu muy bu njëkk xeetu muy bu njëkk xeetu contrat de travail yi jaral ñu utal leen ko muy bu njëkk xeetu contrat de travail yi jaral jaral ñu utal ko loi spécifique foofu la ñuy jeexalee xibaaru bitim réew mbokk yi ma ngoog ba tey leneen jëm ci wàllum euh, xabaar yi nga xam ne moo ñeel jëm ci xabaar yu tàggat yaram xabaar yu tàggat yaram dañ ci dal dalal euh, njëkk dañu koy doole ak li nga xam si ni moo xew li xew nag moo di làmb ji doxoon ci diggante Sa Thiès ak ki ni moo di Eumeu Sène mbir am na ca mbir ma ca moo di lañ leen a fay di seen i payoor am na luñ ca jël maanaam am na luñ ca dagg as lëf lan ca dagg nag moo di soo boole li nga xam si ni moom lañ dagg euh, kii di Sa Thiès ak ki nga xam si ni moo di Eumeu Sène daanaka mat na ñetti tam dareet ak juróom-ñatti téeméeri junni ñetti tam dareet moo di ñetti million ak juróom-ñatti téeméeri naka itam combat bi nga xam si ni wala bokk làmb ji doxoon ci diggante Liss Ndiago ak ki nga xam si ni moo di Pokola ñoom euh, ñaar ñooñu kenn ku nekk dagg na lu toll ci téeméeri euh, kenn ko nekk dagg na lu toll ci téeméeri junni ak fanweer naka itam bokk na ci la ñu xamle moo di ñi nga xam ne ñooy taxaw ki moo di euh, Eumeu Sène ak kii di moo di li tax ñu dagg leen boobu lépp koppar moo di yéex a ñëw ci stade bi naka itam mu di faw bi yéex a ñëw itam ci faw bi ak tamit yéex a noppi ci lu jëm ci wàllum gàllaaj ak yeneen yu ko moo ni waxtu wa leen joxoon ne bu jotee ngeen ñëw daal di sëgg bëre waxtu woowu nag jot jot na ba romb te jot ñoo ñëw moo tax CNG daal di jël ah, leen boobu lépp xaalis yéenekaay bi wala bokk ah, xabaar yi ci digg tey bokk na ci leneen lañ leen xamal moo di kenn ku nekk ci mbëri lañ la dagg àgg nañu ko mu toll di ñaari million yu teg ah, téeméeri junni ki nga xam si ko dagg mi ngi ci benn tam daret di benn million bu teg juróom ñeenti téeméeri junni noonu la ñu ko xamle Pokola ak ki nga xam si ni moo di Liss kenn ku nekk ñu dagg la ci téeméeri junni ak juróom fukk noone la ñu ko àggee mbokk yi lañ koy tegtal moo di li gën a fës ci yéenekaay yi nikite ji nañu ànd ci ak ab Nar mbokk salaamaaleykum tey àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor yi atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent ko juróom ci gàddaay gi lu jëm ci tukkib nemmeeku bi njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye doon amal ca bi di la Soleil ci la xëy tey njëkk gis nag naataangoom bi di njiitum réewum Côte d'Ivoire Alassane Ouattara mu teeru ko tatagal ko ba tey yéenekaay bi dañoo xamal ni ñoom ñaar nag waxtaane nañ mbir yu bare bari bokk na ca la ñuy waxtaane moo di ana naka a def a dëgëral rataxal diggante ñaari réew yi naka noonu itam ànd liggéey ba mbooleem réew yi ci kembaaru Afrique rawatina CEDEAO wéy di gën di booloo ba jàmm ak kaaraange sax fi dak wàll fa ko dijee dikk di ñu xamal ni waxtaan wi nag lu mu neex neex njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxul ci lu jëm ci xaalis bi di CFA ndax dañu koy soppi wala dañu ko fi bàyyi ci lenn li a wax ba tax ñu bari di ci wax jamono ji mu di lim ka di liste bi nga xam ne fësal nañ ko niki démb mu soxal limub manduwaar di bato yi nga xam bi di point actu dikk di ñoo xamal ne kuréel gi taxaw ngir xeex mbooleem bëgg mu di ñu leeral leen mandu wàddi bato yi lan mooy seeni réew te di seeni nationalité directeur Amadou Sow ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay moom la moo xamle moo di mandu wàddi bato yi ne ay doomi réewum Sénégal ñoo ko moom maanaam réew te Sénégal di nationalité Sénégal yi ne moom lañ amee ndax ca dëgg-dëgg noonu la demee Abdoulaye Ndiaye mooy njiital lëkkaloo gi taxaw ci napp gi ngir lépp jaar ci aw yoon ñu tuddee ko coalition nationale pour une pêche nu mu doy naakkanoo itam lees waxul yu dul jeex bokk na ca fa mu teg kàddoom yi ma ngi koy leeral ci biir yéenekaay bi mu ni am na ci ay manduwaar di bato yoo xam ne la ñu bàyyi ko yii réewum Chine ba noppi ci nappee ci ndoxi Sénégal te na ci ñaari réew te di double nationalité la ñu amee te kenn ku nekk xam na ni loolee jaarul ci aw yoon leneen li jaarul ci aw yoon moo di am na ci ay manduwaar di bato yoo xam ne dañoo abbe ay tur ñu koy wax prête-nom maanaam jël manduwaar boo xam ne tugal la bàyyi ko ba noppi moomale ko ak doomi réewum Sénégal te noonee la Abdoulaye Ndiaye di xam ne ni léegi xóor yi yëpp gannaaw ba ne ko xamee dinañ ci def sunu kéemtulaay kattan bay ci sunu waar ba leeral mboolem lëndëm gu ci nekkoon ba nappuk Sénégal mën a maasa jaar ci aw yoon lii njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëgg a jeexal ci réewum Sénégal mu di coowal suuf ci la lii ku tijjee xëyte ji ànd kook Babacar Diop bu Thiès nangu na ne téeméeri pàkk ak Thiès mi nga xam ne ni juróom-ñett fukk ak juróom benn xelalkat ñoo fa nekk waaye juróom fukk ak ñett kott rekk dong ñoo am ci pàkk yi waaye ñooñu sax lan mooy nday ñu leen di jox suuf sa laaj la bopp yéenekaay bee ko sam yéenekaay bi di vox suuf la moo xam le moo di coowal suuf la am ca kaw ga dëkk-dëkkaan yi moo yées fuuf coow li am ci corniche bi te nag loolu doon loo xam ne bu ci teeluta jël ay matuwaay def ci ay jéegu fii ak fukki at ba fukki léexoor yi te nekk ci lu kenn léegi def na fukki fan ak ñeent waaye ba tey ji weccooy lenge di passation de service amagul ba tax yéenekaay bi sampaab laa naan bas lii lu mu liggéeykat ya nekk ca pati ña ngay yuuxu wàllu la ko waral moo di jafe-jafe yu metti yéen jànkooteel ci seenub liggéey ana lan ko waral ci dëgg-dëgg ak la ñu bëgg lépp yéenekaay bi dikk na gàcca ngaalaama duwaan bu Sénégal amalitan liggéey bu rëy la rafet jafe-jafe yéenekaay moo ñu ko xamal la ko waral moo di lu toll ci ñetti tam ñeret di ñetti milliards ci xaalis bu ñuul kukk xaalis bu baaxul ñu koy wax billet noir moom la teg loxo ña ko jàpp ca Sénoba Vox Populi dellu si di ko dëggal tekk di ñu xamal ne duwaan bu Kolda moom jàpp nañu toll ci juróom-ñeenti tam ñeret di juróom-ñeenti milliards ci xaalis bu ñuul kukk ci ndorteelu at meeg léegi li ne fàng ne dajj ci xëdu njëkk l'observateur ku noo def yéemu ndax ni mu ñaawee te doy waar bi nee na dafa am benn nunu nunu mooy jigéen ñi ñuy jël di leen fay ngir ñuy tee ay xale di leen toppatoo nunu bi la mu def moo di dañu ko dénk ab xale daanaka liir la ndax fukki weer ak benn kottu rekk dong la moom nunu bi jàpp xale bi di ko foowe ak saay-saay ci ay awram léegi ko yéen kaay dikk di ko gën a dëggal tekki di ko gën a leeral njëkk yéen a kaay bi dañoo xamal ni ndaw si di nunu bi nday es fay la koy wax gannaaw ba mu taxawee ci kanamu attekat bi toppekat bi di procureur fukki ati kasalu sàkku ngir ñu teg ko ci kawam ciy réew mi saa boo xëyeeg la ngay dégg waaye lii tamit mbir la de mbokk yàlla na ñëpp am jàmm jërëjëf jërëjëf euh, sant leen gërëm leen mbokk yéen ñu doon bàyyi xel jamono ji ci xabaar yi digg bëccëg gi fii ci Leral TV fii fii sax la jaare daal di yem ak euh, ci xabaar yi digg bëccëg gi ndees tuut euh, ki nga xam si ni moo di soxna Fatima Coulibaly dana fi dikk ànd ko génn faram-fàccee ko ci xabaar yi français naka noonu itam ci kàllamay français mbokk noonu itam dañuy sant tey gërëm ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ci xabaar yi ba lépp yemb ñu nekk ci teewlu rek topp gi di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen mbokk yàlla na ñëpp am jàmm